bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi ajmaina amma baad mbokki jullit yi ñu xam ne li ñuy tuddee waxtaan muy dialogue bokk na ci fond fondementaux social muy ay cëslaay ci wàllu dundiinu askan wi yi nga xam ne lislaam daf cee soññee lool soññee ci waaye tëral ko ay teggin ak ay valeur yoo xam ne mooy former société bi ngir mu nekk société bu dëgër bu am kaaraange gu ko mën a musal ci ak dellu gannaaw wala ci ak daanu wala ak tas waxtaan nag buñ ko waxee mooy ab tomb xew wala mbir nit ña am xel toog waxtaane ko ba xool la nga xam ne mooy la ca jaaru ñu doxale ko noona wala ak jooyoo am ci diggante nit ak nit wala kuréel ak kuréel ñu bokk ñoom ñi bokkul xalaat bokk toog waxtaan ba àgg ci résultat loolu lañu ñu tudde xiwaar xiwaar nag muy dialogue dikk na ci alxuraan ci ay aay yu bare bari bokk na ci yi ci gën a siiw ñaari aay yi nekk ci suratul kahfi mu ne wa kaana lahu samarun fa qaala li saaxibihi wa huwa yuxaawiruhu ana aktaru minka maalan wa aazu nafara nit ñu nekkoon ci seeni tool di bay la kenn ki wax ak moroom ji wax ak moroom ji di dialogue dox seen diggante kooku damu ci kaw moroom ji ne ko man dey maa la ëpp alal maa la ëpp mbooloo maanaam di damoo alalam ak mbooloom loola du lu jaadu ka ca des tontu ko moom it bi ne wa huwa yuxaawiruhu qaala lahu saaxibuhu wa huwa yuxaawiruhu ak kafarta billadi xalaqaka min min turaabin tumma min nutfatin tumma sawaaka rajula ndax dangaa weddi nag ki nga xam ne moo la bindoon muy sunu borom tabaraka wa taala te bind la ci suuf bind la ci am ndox mu xeebu defar la ba nga nekk waaju taxaw yor kàttan ndax dangay ngay bëgg a fàtte kooku kii damoo alal di wax ne maa la ëpp alal ak mbooloo mi ngi bëgg a fàtte ne moom ci suuf lañ ko bindoon muy maamam aadama bu dee jëmmi boppam ci am ndox mu xeebu ci lañ ko bind moo xam ne fu mu la laal nga raxas ko kon lu muy damoo ci kaw suuf yëg ko fa mu ne ko yaa ngi bëgg a weddi sa borom wala yaa ngi bëgg a fàtte sa borom loolu dialogue la ba dox diggante ñaar alxuraan nett li ñu ko ci doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay taxawaay dialogue bari na ci lool daanaka dundug yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam digganteem ak ñim doon woo sax sooy boone lépp dialogue la ndax lu ca dem ba jéggi dayo ba jaamaarloo am ca sax day fekk dialogue jiitu na ba kenn amatul pexe la cay tegu doon caa tegu ngir joxe ci benn misaal benn bis dafa am ku ñëw koo xam ci yahud yi la bokk muy juif yi nekkoon Madina fekk dafa lebaloon yonent bi sallallahu alayhi tàndarma dafa lebaloon yonente bi sallallahu alayhi wa tàndarma waaye tàndarma jooju ila ajal dana ko woon bu weer sàngam jotee ci nga may fay ca bis sàngam ca weer woowee ñu d'accord ca loola ndax bor noonu la war a tëdde ki la lebal da wax ne bor bi bis sàngam laa la koy fay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la waxoon waa joojee ah délai biñ joxante woon jotagul yahood bi ñëw taxaw mel ni ku koy nattu di xool ba xam lan mooy ay jikkoom ñëw fekk ko ci biir mbooloo mi daal di yëkkati kàddoom wax kàddu yu diis yu metti ne ko yéen day yéen waa kër Abdul Muttalib du ngeen fay bor fay ma sama bor bi sama tàndarma ji nga ma yoreel fay ma ko yu mu waxee loolu Omar ibn Xataab ne bërit fab jaaseem jëm ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko toogal Omar ne ko man man mii ak kii mu yahud bii toog lin soxla ci yow du lii du mooy nga jël jaasi jëm ci moom kon foofu mu ngi woote ci ne waxtaan moo war a am waaye jaasi war te jóg mooy lan nee na ko danga maa war a digal man ne ma fayal borub jaambur te rafetal ko moom it danga koo war a digal ne ko booy fayu bor na nga ko rafetal lii la yonente bi sallallahu alayhi wax ak kan moom la wax ak Omar daa di ne ah dëgg la waxtu wiñ ko war a fay jotagul waaye ginnaaw mi ngi taxaw di laaj àqam nañ ko jox àqam ñu dem fay ko tàndarmaam nam toll ba àggal yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne natt leen ñaar fukki àndaar teg ko ci àndaar nattukaay la ndax tiitaange ji ko Omar ibn al tiital bi mu yoree jaasi ji jëm ci moom loolu war nañ ko ko fay moom itam xool yooyu jikko ñu nattal ko ñaar fukki àndaar jox ko nee na falam yasaxil yahudiya illa an alana islaama nee fa mu toog la wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon nga xam ne waxtaan ak weccente ay kàddu ak wane jikko yu rafet la muy lijjanti fii ci kaw suuf jaasi mënu koo lijjanti paaka mënu koo lijjanti ak fetal mënu lijjanti li ñu tudde werante nag werante bokkul ak waxtaan ndax werante kenn ku nekk sa dënn day tàng nga fas yéene li ma yor dong mooy dëgg keneen lu mu wax du dëgg loolu borom bi tabaraka wa taala daf koy tere loo xam ne kenn séentuwu ci résultat loolu dañuy tere ku ca werante moo tax saa buñ tuddee ji daal ci alquran xamal ne dañ koy tere lu dul su fekkee ji muy waqante boo xam ne dañ ko war waxante bu ñu rafetal nag suñ ko waxee kooku mooy firi dialogue mooy waxtaan bu boobaa moo tax borom bi daf ne ud'u ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati alxasana wa jaadilhum billati hiya ahsan nee na booy woote jëmi ci lislaam na nga ko def ci xikma ak waaraate goo xam ne gu rafet la su dee dangaa dem nag bay jiddaal te jiddaal mooy kàddu gu dëgër goo xam ne ma ngay tàmbalee yëkkatiku xaw a nuroog werante te fekk doonagu ko mais soo demee bay def loolu nag na nga ko def ca nam gën a rafete su boobaa waxtaan lay doon waaye nekkatul xuloo moo tax mu ne wa jaadilhum billati hiya ahsan ne wala tujaadilu ahlal kitaabi bu leen xëqanteeg ahlul kitaab wala ngeen di jollasanteeg ñoom illa billati ahsan lu dul ci li nga xam ne moo gën a rafet kon saa bu ngeen waxtaanee ci lu mel noonu na ngeen fexe ba seen waxtaan doon wu rafet muy waxtaan ci ñoo xam ne dañoo wuute ci ay mbir ak lu mën a doon moo xam ci wàllu social la wala ci wàllu diine dafa am importance ci aw askan lii wane ne am na importance ci askan moo di ku xool jullit yi li ñuy dund ci tey li ñuy dund tey li nekk ci seen biir ci ay jooyoo ci ay kuréel yu bokkul ay jëfiin bokkuñu ay jëfiin bokkuñu ay jëmiin juuyoo yooyu su fekkee waxtaan amul ci diggante kuréel yooyu waaye rek juuyoo googu ñu continuer di ko suuxate kenn ku ne di gën a sori sa moroom kenn ku ne di gën a sori sa déggiinu moroom kooku mën naa jur musiba ci aw askan moo tax waxtaan am solo ci xeetu lislaam rawatina ci jamono ji nu nekk ñaareel ba moo di waxtaan muy jalo bokk na ci moyen yi nga xam ne ci lañ mën a jaare ngir waa adduna mën a déggante ndax kenn ku ne réew mu nekk yaa nga yor say aada yor say cosaan amaana yor sa diine am say jëfiin ak say déggiin meneenum réew ma ca defit noona la mel ngir ngeen mën a jokkalante ba ak dimbalante nekk ci kaw suuf jàmm nekk fa faw dialogue am seen diggante ngeen man di waxtaan man di yëgoo kenn ku nekk xam sa moroom ci lan la nekk ñetteel ba mooy dialogue day tax kenn ku ne xam gisiinu sa moroom su waxee nga dégg mu expliqué ni mu gisee nga wax yow itam ni nga dégg ak ni nga gisee kenn ku ci ne dana xam sa moroom fam nekk benn ma xam ne yow kat ndeke li nga nekk moo gën a yenu maanaa li ma nekk ma bàyyi li ma nekkoon wala ma wàññi ko jariñu ci li nga yor su fekkee dëgg ma tax a jóg yow it lu mel noonu mën naa amee ci sag wet su ko defee njariñ lu mel noonu mooy juddoo ci dialogue ñeenteel ba moo di dialogue dafa doon loo xam ne jëmmi doomu aadama sax moo ko aajoo te moye la ci wàllu social ñu dundinu askan wi ngir mën a jàpp ndalal nit ki mu bañ a doon gan fa mu dëkk nekk fa kenn ku bokk ci biir askan wa ci boppam ndax waxtaan naag nit ña waxtaan naag askan ya waxtaan naag njaboot ya ak famille ya ba kenn ku nekk xam na say gisin ak saw déggiin bu la mënta jële ca la nga nekk itam dana xool nu muy dundeeg yow ci jàmm su ko defee askan woowu askan wu dëgër lay doon di ñuy wax indimaaj muy jaxasoo ci sa biiru askan mën a nekk ci seen biir di jëflanteeg ñoom ci jëflante nam jaadoo ba noppi yor sa pas-pas ak sa diine na mu jaadoo loolu fànn la goo xam ne gu ñuy jàng la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa la ne léegi ànd ak ne mooy yonent bi mu ngi jëflanteeku yahood boo xam ne ñooy ñi gën a bañ jullit yi ci kaw suuf bay lebleenteeg moom ndax loolu dafa tax mu dellu gannaaw ci pas-pasam wala ci diineem déedéet xam na lenn lu nekk fa mu féete féetale ko foofu yemale ko foofu kon noonu loolu lay jariñ ci diggante doomu aadama yi ba tey dialogue day tax nit ki mën a équilibre ci diggante ñaari mbir équilibre ci côté beru maanaam lim moom mu xam ne lii sama yëfi bopp la lim bokk ak nit ñi mu xam ne lii moog nit ñi ñoo ko bokk beru moo xam ci wàllu xalaatam la moo xam ci wàllu dundiin la moo xam ci leneen kenn ku ne am na loo xam ne lii sa yëfi bopp la yoo xam ne da nga koy dund bu dee diine sa digganteeg sa boroom la bu dee ci wàllu àdduna mën naa nekk sa digganteeg sa njaboot sa digganteeg sa soxna sa digganteeg sa doom sa digganteeg sa surga wala sa digganteeg sa kilifa lenn lu ci nekk am na loo xam ne lii yow yow la concerné sa personne ci boppam loolu mbiram la loolu nan nga koy mën a méngalee nag ak li nga xam ne da koo bokk ak ñeneen nga xam ne loolu moomoo ko waxtaan ak déggoo loolu rek moo mën a tax lu mel noonu mën a am ba tey it yi nga xam ne mooy gaar ci àdduna bépp bépp problème boo fi dégg xamal ne dialogue dong moo ko mën a saafara amul benn jafe-jafe buy taxaw ci kaw suuf ngannaay man koo saafara wala tiitloo nit wala xupp ko wala sonal ko ba tax ñi ne musiba mooma raaf na ba amatu fi moo tax xeex bu fi taxaw bu mën a doon lu yàgg yàgg yàgg fa ñu mujj mooy toog ci kaw taabal rek waxtaan ne nañ teg ngànnaay ci suuf ginnaaw loola la ñuy mujje nag kooko jëkki ko mooy yëfi nit kon jëmmi waxtaan ak dialogue loolu mooy yëfi nit eh, ba tey it bokk na ci ay njariñam mooy nangoo déglu keneen nangoo déglu keneen bul jàpp ne man nii ma gisee noonu dong la cent pour cent dara sikku ci lépp baax keneen nam gisee cent dara baaxu ca déglul keneen ka la muy wax ba xam ndax ndaxte lee njariñ a nga ci loo xam ne yow amoo ko woon nga jël ko boole ci li nga yoroon muy njariñ déglu ko li muy wax ci yow amaana njuum tee ngi ci loo xam ne bàyyi woo ko woon xel nga mën koo bàyyi kon loolu lay jariñ danga mën a respecté keneen ki nangu koo déglu mën a jariñu ci moom mu mën a jariñu moom itam ci yow te it dialogue bokk na ci njariñ yi ci ëpp solo mooy day xamal nit ki njuumteem di ko jàngal nan la nit ki delloo gannaaw ci njuumteem man kat maa ngi woon ci liy dëgër ci këng defe ne noonu la waaye ndekete kat boo waxtaanee xam ne yow ndekete ci njuumte nga nekkoon am na ñoo xam ne bëgguñu jolof parce que lañ nekk bëgguñu ko bàyyi dañuy lay wax ne bu doon njoomte sax nañ ma ci bàyyi man ba ma denc baax na noonu loolu musiba la ci nit boo ko defee ba dajeeg sa borom doo amul lay bokk na ci mooy dafay jàngal nit ki jikko yu rafet jikko yu rafet muy jikko yu waxante teggiini waxante su waxee jox la ni nga koy dégloo soo noppee ni nga koy joxe na nga ko koy leerale na nga ko koy faram ba mën koo xam yooyu yépp ay teggin la ci wàllu jikko yoo xam ne dialogue moo koy jàngal nit ki di ko jàngal muñ ndax mën ngaa dégg loo xam ne xam nga ne lii ngay dégg lépp njaaxum la waaye nga déglu borom ba mu àggal bul yàkkamti dana la jàngal muñ dana la jàngal teey bokk na ci it mooy dialogue mën naa néewal walla mën naa jeexal lu bari ci diversité yi muy juuyoo yi nga xam ne moo am ci biir askan wi ak mbañeel yeeg noonoo yeeg yi nga xam ne yépp yi ko indi mooy kenn ku ne da toog fu nga toog atte sa moroom jugé ko ne moom de nangam la daal di noppi ci moom nangootoo ko déglu njuumte yooyu nga xam ne looloo koy indi yépp jaloog mën na ko saafara ba mu jeex tàkk jaloog nag fu mu am na ay lor yu muy indi muy nit ñu dem ba waxtaanatuñ waxtaan yëpp seen i problème am na lor yu bare bare bari yu ca mën a juddoo dañuy tudd fii rek lenn ci lor yooyu waaye jubluwuñu tudd lépp bokk na ci yooyu mooy buntu compréhension day daal mooy kenn ku ne mën a comprendre ak sa moroom ba xam moom lu mu gëm ba xam lu muy dund ba xam ci lu mu nekk bunt boobu day daal di tëju bunt boobu bu tëjoo buntub dimbalante day daal di tëju loolu nag su amee ci ab société la muy jur mooy société bi wonante gannaaw bu dee daa jëm ci wàllu askan da gis ne askan wi daal ñeeñ bokkal askan képp ñoo leen itteel ku dul ñooñu amuñ ci ñoom soxla soxlaalu ñeen dara amuñu ñoom menn mbir fu ñu wéet ca kaw ñooño lañ nekk bu dee wàllu jëw wàllu diine itam lu mel noonu lay jur sëb kuréel jàpp nga ne mooy lislaam li ko tàmbalee ca suuf ba ca kaw lépp lu génn sab kuréel nekkatul ci lislaam su ko defee kooka la muy jur mooy musibam kenn ku nekk atte sa moroom ne nekkul ci lu baax man maa nekk ci lu baax te su ngeen waxtaanul kenn du xam kan moo nekk ci lu baax dana indi ba tey ak wanante gannaaw ci diggante culture yi ak civilisation yi nga xam ñoo nekk ci kaw suuf su ko defee la muy jur mooy li ñu tudde ak xeebante askan wu nekk wala réew mu nekk xeeb keneen ku dul yow wala am ay réew yu jóg jàpp ne ñoom seen civilisation ci kaw suuf rek moo war a nekk civilisation doomu aadama ku nangoo dikk bokk ci ca daal alhamdulilah kooka moom ku baax la ku jub la nañ ko jàppale nañ ko dimbale ci alal ku nanguwul suñ civilisation nag ak suñuy tëraliin kooku nañ ko jóg xeex ko donte day laaj ay ngànnaay donte day laaj daaneel sax ay réew donte day laaj jënd ay eh, jikkoy doomu aadama yi ak seeni pas-pas bay soppi ko doon leneen kooku su wàccee ci aw su waxtaan amut kooku musiba mu mel noonu moo fay juddoo bokk na ci it mooy crise yu mag yi nga xam ne moo ne ci kaw àdduna bi su waxtaan amul jàpp nañ ne doole rek moo ko mën a saafara te niñ ko waxe léegi doole munta saafara crise ak lu sa doole bari bari bari bari kenn ku nekk dégg na xeex yi nga xam ne moo am ci àdduna daanaka fanweeri at a ngi nii xeex yi jolli ci kaw suuf deret yi di tuuru kenn xamut li ci yàqu num ba léegi taxul ñu ne àgg nañ ci ñu ne ñii ñoo gani ñii wala ñii fii lañ féete waxtaan ak dialogue ak lenteente ak teg ngànnaay yi ci suuf loolu dong moo mën na régler li nekk ci kaw suuf loolu moo tax lislaam moom ci loolu lay woote bokk na ci lor yi mu lor mooy kenn ku nekk xam na ne am na réew yu bare bari tey yuñ tabaxoon ba ci wàllu développement mu àgg foo xam ne fu kawe la ay xeet yoo xam ne àggoon nañ fu kawe ci wàllu civilisation ñàkk a waxtaan tax ñu tëb dal ci seen kaw mab mboolem lañ tabaxoon ci wàllu développement rey ay nit ñoo xam ne ay millions la ay xale ay jigéen ba li ñuy wax di tudd développement amatul ci réew yooya te fekk li ko indi képp mooy ñàkk a waxtaan bokk na ci lor yi muy lor moo di dialogue su amatul kàddu defarkat yi kenn du ko dégg defarkat yi nga xam ne ñoom defar diggante bu yàqu rek mooy seen liggéey seen kàddu day nëbbu ñan lañu dégg seen kàddu mooy yàqkat yi parce que waxtaan amatul te kuréel bu nekk am na ñu nekk ca seen biir ñoo xam ne yàq moo leen tax a jóg ñooñu ñooy yëkkati seeni kàddu di sànni ñële ay xeer ñooñu di yëkkati kàddu di leen delloo ñay defar ndi déglu kañ la ñuy mën a toog ba waxtaan te ñooña buñ yeexee duñ mës a toog ndax fitna bu xasee taxaw euh, téye ko di daal doon lu jafe bokk na ci li muy jur muy ñàkk waxtaan mooy fayul sa bopp fayul sa bopp yàgg nañu wax mbokk yi ne musiba la ci askan wu mën a doon am réew bu ñuy taxawal lu ñu tuddee état ak lam yor ci ay jumtuwaay la réew ma jublu ci loolo mooy bu ñagas-ñagas amee ñi nekk ci biir askan wi doon ay defarkat nañ ko defar suñ ca lottee ci mënuñu koo defar ci jàmm ak salaam ak waxtaan nañ ko jàllale ci état mu régler ko moo xam nag moom ci waxtaan la koy régler walla ci wàllu geneen gum koy régler waaye su fekkee li nekk ci xoolu doom aadama yi mooy luñ gis te bëgguñu ko ñoo war a jóg dindil ko seen bopp loolu amul frontière tooñ dana daal di tasaaroo ci woowu askan lor dana fa daal di am te am na ñuy nekk ci biir askan wu nekk woo xam ne loolu moo leen itteel mooy dañoo bëgg la fay nekk mooy kenn ku ne da ngay taxaw fëgg sa dënd ne man maa mel nii maa toll nii ku ma wax li wala ku def lii danaa jóg fajal ko sama bopp kooku musiba la kenn ku nekk ngir dëgëral ne am na ñu nekk ci biir askan wi ñoo xam ne loolu moo leen itteel kenn ku nekk yëg na jamono yi nga xam ne déclaration yi jëm ci jigéen ñu solu ba muur seen kanam déclaration yi jóg na am na ay kuréel yu nekk ci suñu réew mi tey di ko exploité ci anam goo xam ne lañ ca jublu bu fekkee ne arrêté wuñu leen mooy tàqale diggante xeet wi yëmalewul ci tàppale ci wax ak werante ndax wax jeeg werante wi moom foo toll fu nekk yaa ngi koy dégg moo xam ci rajo yi la moo xam ci jataay yu nit ñi toog lañ biir oto yi fenn fu nekk boo dégloo ña fay nekk dañ lay wax ne fan yi nit ñi noppeetuñ ci loolu lañuy werante muy ci marché yi muy ci feneen waaye la ca rax mooy ñu nekk ci seen biir di def li ñuy wax ruuxale maanaam jaxase pour bëgg a jaxase askan wi ba kenn ku nekk jóg jëm ci sa moroom réerewu mbir ne fa ñuy am na journal bu bind wax ne am na soxna su génne këram ci biiru marché muur kanamam nit dal ci kawam summi yéreem dóor ko ba yaramam nàcc loolu ab journal bind na ko lu bari ci yéen jàng nañ ko te loola dara amu ci du dëgg boroom xam-xam yi dëkk ci quartier booba jógal nañ seen bopp gëstu laajte fan la amee ak ñan ñoo ko fekkee kan moo ko defa ak kan lañ ko def gis ne dara amu ca marché ba ñuy wax ne loolu fa la amee ñu baree nga fa ñoo xam ne buñ xëyee ci seenub liggéey lañ nekk muur seeni kanam te kenn tudd leen tudduñu kenn kon da ngay yëg ne am na ñu ne ci suuf ñoo xam ne seen liggéey mooy yëngal nit ñi nañ def réaction boo xam ne nañ def benn action boo xam ne la muy jur maanaam réaction ba mooy jullit yi danañ jóg def ay marche imaam yi xutba ci ñii soow nangam suñ jigéen ñi lu tax ñu leen def nangam ñii dal ci kaw président ñii dal ci kaw état ñii dal ci kaw nangam kenn ku ne jëfe loo xam ne fekk dañ koo teg ci benn xabaar boo xam ne dara wéru ci kon lu mel noonu faaw mbokk yi nag bàyyi ko xel moom itam yi nga xam ne dañ koy tasaare te du dëgg moo xam ci réseau yi la nekk wala ci journaux yi ñu bind la wala ci rajo yi ak télévision yi la bokk na ci jamonoy tey ji lim lim laaj mooy teey ci li ñu tudde rumeur bul dégg dara mukk jóg lu dul gannaaw boo xam ne vérifié nañ ko ba am ci loo xam ne lu leer naññ la mbokk yi nga xam ne ñoo jógoon di gëstu loolu ñu ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu dolli leen tawfiq noonu ñu def noona la loolu mooy jëf yu kilifa te mooy mbokk yi nga xam ne ñoo yore lu jëm ci wàllu woote jëme ci lislaam doon ay boroomi xam-xam yu nekk ci béréb boobee ñooy jóg defal seen bopp seen gëstu yu bopp ba génne seen résultat ne xabaar boobu ñu waxoon dara wéru ci kon loolu ñu xam ko wattandikoo tàbbi ci fiir yi nga xam ne yàqkat yi tasaarekati société yi ñoo koy tasaare ngir seen intérêt bopp wala ñu koy tasaare sax ngir tiitloo jigéen ñi nga xam ne dañ doon muuru ñoom nga yëg ne yow kat ginnaaw soo muuroo soo génnee ñi ñori la wala ñu dóor la ba sa deret tuuru kon bul muurooti amaana loolu seen objectif la kon ñooñu bu leen kenn wuyu bu kenn xaale li ñuy wax sax allahuma hayyi lana min amrina rachada allahuma ijcalna udaatan muhtadin allahuma axtim bisalihati acmalana wajcal xayra ayamina yowma liqaaika ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة